bu julli jotee ñu ñu dog ko julli te yeggale mu mel ni eh, am na ci bokki taalibe yi ñoo xam ne xëy na du ci ñàkk ñoo xam ne yàgg nañoo dégg daara ji eh, yàgg nañ cee defit seenu ñaq am ci pas-pas lool te yàlla dogalut ñu mas siyaare liggéey bi ñu fiy defit ñu yàgg ko dégg ay bokk taalibe yàgg leen ko xibaar waaye mosuñu koo teg bët mësuñu ko dégg it ci ña koy jonjoo loolu la ñooñu dañuy am àq ci bu ñu yàlla dogalee ñu yegg si fii ñu wax leen kàddu yu gàtt yoo xam ne danañ ci xamee as ci liggéey bi ñuy def fii moo tax soxna si nga xam ne moo yore wàllu njàngale mi bëgg naa ko jox kàddu wax tuuti lu aju ci wàllu njàng mi ni fi gone yi duggee effectif bi nu mu tollook ñu fi wattoog yu te yani demee bu noppee itam naa jox kàddu sañ Afe moom itam nga xam ne wàllu saytu bi évaluation bi moo ko jiite ñiy natte gone yi quantitativement qualitativement ci seenum njàng ndax jàng nañ li ñu war a jàng njàng ma rafet na na mu war a rafete loolu moo ko jiite su ko defee moom itam mën cee sànni kàddu ci loolu ñu xam ci aslëf bu ñu noppee itam jox sëñ joxum Joxumpa mi nga xam ne moom it lu jëm ci wàllu surveillance moo ko yore te mu boot personnel d'encadrement bu xaw a takku moom itam mu tudd ca lëf ci seenu liggéey noppee daañu jox sëñ Moussa Ñaan moom itam moo xam moo yore moo yore wàllu saison bi moom itam yore wàllu waañ wi ak lu jëm ci liñ fi mos moom itam mu sànni kàddu ci liggéey ba aju foofa lis ci mën a dégg yooyu yëpp nag ñu ngi sàkku ci ñu koy def bu noppee it naka noona soxna Ndey Jami ngi fi di directrice directeur centre de formation professionnelle bi fi nekk ci biir daara ji moom it mi ngi nii toog moom it bu noppee ñu jox ko kàddu moom it ci tënk wax kàddu yu gàtt yoo xam ne daañu xam gone yi ci lu leen di tàggat yan filière ñoo fi nekk ak ci anam koy defee ak ñi fay dugg ñan la ñu daal euh, ci gàttal mooy kàddu yi nga xam ne xanaa bu ñu noppee xanaa ma sànni ci kàddu gàtt ma it ci naal yi nga xam ne moom lañ am ci kanam rek. Eh, ak lenn ci xëy na jafe-jafe yu ñu am ak yu demee noonu su ko defee bu ñu noppee nag ñu daal di jox sëriñ bi waaw ah, mu waxtaan ak mu wax ak yéen li ma xam ne bëgg na koo bëgg na ko bëgg na leen ko jottali loolu eh, loolu lépp nag day jël tuuti <laughs> tuuti tuuti waxtu te taxunoo jóg loolu lépp dara loolu ma wax lépp dara dara taxunu cee jóg fi ne tey moo tax ñu ñuy sàkku bu baax gàttal gi ndax li ñu tax a jóg tey mooy plan de masse bi ñu doon wax ci am ay bokk yoo xam ne yii liggéey nañ ci aslëf ñëw war ñu ko war ko exposé war ko présenté ñooñu ñu jox leen tuuti waxtu ñu mën a ñu mën noo won li ñu liggéey noonu ñu mën cee am xalaat delloo leen ko ci liñ jot a liggéey ndax dañ koy wéyal wala dana am ay soppat yuñ ci war a soppi ngir mu gën a déggoog njariñul daare ji wasalaamaaleykum kon maa ngi jox kàddu gi soxna Awa ci noonu ma ko waxee rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi nuyu sunu sëriñ suñu kilifa sëriñ Isxaaq Mbàkke Bachir ak mbooleem ñi mu àndal ak mboolem mbokki taalib yi nga xam ne tey dañuy ñëw ci daara ji ngir wax dëgg yàlla taxawaay ba ñu yàgg a taxawee tamit ñu continuer di ko taxawee tey Euh, ci beneen façon boo nga xam ne bokkut ak yéen daan taxawee ñu jël nuyoo bu sell bu tedd di ko teg ci loxoom mu jëm ci ku tedd ka Cheikh Mamadou Mountakha ñuy ñaan yàlla na fi yàgg te wér lool ak ci kanam njaboot gi. di fàttaliku tam ko tam sëñ Mouhamadou Moustapha Bassir mi nga xam ne mm, ñoom la àndaloon sos daara ji tey yàlla na suñu borom dolli ko ay leer ak xéewal euh, ni ko sëñ Abou waxee xëy na kàddu yi warut a gudd euh, ndax ñu dañoo war déglu leen rek ndax da ñëw ngir. taxawu si daa dimbali ñu ci liggéey bi nga xam ne ñoo ko bokk. Euh, waaye tamit nit ki mu ñëwee tam ci barab ñam fa fekk war nañ ko caa jox ay leeral donte lu mu néew néew euh, ndax leeral yi sax xëy na euh, ñàkku leen koo xam sax ndax yàgg nañoo yéen ci liggéey bi waaye tamit du tee rek saa su ne ñu koy fàttali bu ñu nee daara ku nekk xam na ne njàngum alxuraan mooy njëkk rot ci xele nit ñi kon fii mooy kër soxna jaara fii mooy daara soxna jaara kon ni ko sëñ bi waxee saa fi su fi nekkoon rek dina am kër te këram daara lay doon kon njabootu boppam gi fi nekk ay turandoom ñoom ñëpp soxna jaara lañ tudd su ñu amee juróom benn at wala ñu am juróom ñaari at ci lañuy ñëw ci daara ji daara ji ba mu tàmbalee léegi ren la ci fukki at ak juróom benn depuis cinq la woon ni ko xamee woon euh, danañ fi jàng alxuraan karim te loolu mooy li nga xam ne mooy euh, li jiitu ku fi agsi ku ne da nga jàng alxuraan ba am ci li nga xam ne moom nga ci mën a am la ci yàlla séddee euh, su ko defee tamit nga jàll ci yeneen njàng ci des mu njàng xam-xamu diine ak njàng xam-xamu àdduna ak centre ak dem ci centre de formation bi ñu tudd léegi nii. njàngum alxuraan mi nag ñu ngi ko def ci diir juróomi at lañ koy def. juróomi at yi soxna jaare ñëw ci daara ji jiitu lépp da ko jàng alxuraanul karim su ko mënee mokkal ci diir boobu mu mokkal ko tari ko su fekkente ne mokkalu ko tamit lu mu ci am tamit mu xam ne loolu la ko yàlla séddee mu jàll ci meneen njàngam ci des. Euh, ci daara ji am nañ fi euh, ñeen fanweer ak juróom-ñeenti jàngalekat maanaam corps enseignant bi fi nekk 39 personnes lañ. Euh, soxna jaare yi fi nekk bi ñuy soog a door nekkoon na ñeent fukk ak juróom euh, ak juróom euh, juróom-ñeent téeméer ak juróom fukk maanaam 450 la nekkoon waaye tamit bi ñu tàmbalee sëñ Saxa Mbàkke mi ñëw ci daara ji sëñ sëñ Muntaxa ñëw fii ñu fekk ñu ci mbaar mi ñun ñëpp mu wax taxawaay bi mu ko jox ci daara ji ànd ñi nga xam ne ak njabootam la ñu taxawoon taxawaay bu rafet booba ba tey tamit gis nañ ni am na ci yokkute. ndax yokk nañ fi benn yoon juróom fukki xale ñu am juróomi téeméer ñu demaat ba daaw ñu yàkkal juróom fukki xale kon ñu ngi ci juróomi téeméer ak juróom fukk maanaam cinquante maam jaara ñooy yeewoo ci daara ji euh, ñoom ñooñu ñu ngi leen di séddale ci euh, jàngalekat yooyu ma wax jàngalekat bu nekk dina ci am fukk ak juróom ñett ba ñaar fukk ndax xam ngeen ne euh, njàngalem alxuraan du nekk benn niveau kenn ku nekk fa sa xel toll dañ lay bàyyi nga dem sa xel kon koo ci jox ku ne da ko jox lim bu yam boo xam ne dina mën a saytu loolu saytu bu rafet te ku nekk xam na ne ñun alxuraan ji ni ñu koy jàngee fii ci njàngum tajwid bu set bu teye lañu koy def te loolu euh, euh, boo ci amee lim bu bari doo mën a dem kon juróom fukk ak juróom-ñett wala fukk ñaar fukk gën jaa bari la ñuy jox jàngalekat bu nekk euh, ba ñu door rek léegi tamit suñ borom mi ngi suturaal ñu bare bari mokkal nañ fi ndax 324 personnes maam jaara mokkal nañ fi alxuraan. ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo xam ne dañuy toog ci benn barab tari menel baxar ila naasi nga xam ne ñoom lañ leen mokkal nañ waaye teewut nag li fi wàcc ci ay euh, maam jaara mën na sut xam li mu toll. waaw wàcc ba min ko lool bari nañ lool takku nañ lool waaye nag ñun ni ñuy doxalee xam naa dina ci kanam mooy da ngay toog ci benn barab tari baxara ba naasi loolu ñu ba ñëpp duñ ko man waaye ñi nga xam ne am wàcc nañ fi wàcc wér gu set ci njàng lim bi moom mën na si koo lim. ak ñi ci des kenn ku ne am ca la nga xam ne loola la yàlla séddee su ko defee euh, bu ñu fa jógee nag soo ko jàng ci jàll ci njàngum xam-xam am na fi njàngum xam-xam li ñuy wax majlis majalis am na fi euh, ci ndigalu sëriñ bi mu fonk ko lool ndax xam-xamu diine boo mokkal alxuraan te xamoo diine tamit euh, loolu du am njëriñ la mu war a am moo tax dañ ciy daan jàll ci njàng moom bu ñu fa jógee tamit sëriñ bi daf doon soññi fu ñu toll ne nañuy bind kaamil waaw dañuy bind kaamil kon juróomi at yu njëkk yi alxuraan kese lay doon ñetti at topp ci nekk loolu mu wax loolu. noonu muy jàngum xam-xamu diine ak bind kaamil ci koo xam ne yàlla mën la na ko nga xam ne ku mokkal boo ñëwee rek da daan commencé di beqi bés bu set ngay ngay bind ci àll wa jox ko la koy toppal te dañoo jël sax benn jàngalekat spécial boo xam ne loolu rek mooy liggéeyam ci daara ji. bu la ko toppalee wan la ca la nga xam ne moo cay yàqu la ca des nga defaraat ko. ba at mooma jeex ba ca topp tam nga def noonu ñetteelu at bi nag nga xam ne moo la fi dese nga dem ñibbi ci ngay bind kaamil ci koo xam ne sa loxo set na ci bind kaamil kon daal alxuraan ku ne xam na ne ñëpp duñ ko mën a mokkal waaw waaye ku ne xam ne tamit ñëpp mënuñoo bokk di bind kaamil ndax bind kaamil tam dafa am lu mu laaj waaye am nañ ci kaamil yu takkoo takku ba ren ji rek gis ngeen ko juróom-ñeenti nit bind nañ ci kaamil euh, ba jébale ko gis ngeen ko euh, ci bi ñuy dem Touba kon noonu la njàngale mi tëddee euh, xëy na du ma guddal ne lool lool nag waaye euh, euh, comme li ñuy war a fàttali toujours rek mooy euh, lim bi fi nekk saa su at mu at nekk rek dañuy seet ñi génn rek ñu dugalaat lim bu toll noonu. moo tax ñi ñi ñi soxla seen maam jaar ñëw bari na lool takku na lool waaye tamit waxoon naa ne dolli woon nañ daaw jéeg dolli nañ ren bu nekk juróomi juróom juróom fukk te tamit li ñuy li ñuy génn rek la ñuy mën di dolli heure bu nekk. moo tax ñuy ñu ñuy fàttali euh, mbokki jullit yëpp tam di fàttali mbokki taalibe ne gàllankoor gi am ba ñëpp duñu mën a dugg rek moo ko waral dafa am limite boo xam ne moo fi mën a nekk ci jamono yii yàlla nag dana ko soppi comme ñi ngi doon dolli dolli mën naa am ñu dolli ba àgg fa ñu doon jëm waaye li ñuy génne rek ci la ñu mën a dolli dugalaal lu toll noonu waaye tamit sëriñ bi dafay wax ne nañ ci yemale ñëpp waaw nañ ci yemale ñëpp dañ koy def da daan wax naan sax nañ ko tegoo bant nañ ko tegoo bant tegoo bant mooy tirage au sort dañuy boole ñëpp ñëpp xàmmewuñ ci kenn condition euh, inscription ko ci mën a def rek ko ko ci mën a am rek yow yaa ngi ñëpp yéen ci bokk yem at mu jot ñu euh, tiré ku sa am am chance mu ñëw ci daara ji nga ñëw ñu dem toog xaaraat. kon daal euh, ci gàttal xëy na euh, maa ngi yam foofu rek di santaat di gërëm bu baax mbokki taalibe yi ci seen taxawaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, di wax tamit yëpp nag comme man maa ne seen kanam seen kaddu laay wax ndax bu ne jàngale rek jàngalekat yi ñoo ñoo ñoo ci jiitu waaw ñu dañoo ne seen kanam rek di leen jiite waaye tamit ñoom ñooy jàngale ñu ngi nuyoo tey gërëm tey sant bu baax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina maolana muhammadin al amin wa ala wa sahbi dawi ridwani wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ isxaq ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar di la ñaanal fan wu gudd ak wér di la yóbbante loolu ci sang bu tedd ba cheikh mohamad bin muntaka ayadahu llahu wa nasara di ziar suñu mbokki gan yi fi ñëw di leen dalal jàmm gannaaw loolu soxna awa ni mu ko waxee rek xanaa dañuy tënk rek Euh, liggéey bu nekk dana am euh, saytu euh, moo xam ci njàng jàngale la wala ci yeneen liggéeyukaay la su fekkee ba nga liggéey ba jaar yoon faaw ngay xayma ba xam ndax liggéey bi ni mu war a doxee mi ngi koy doxee ci ni nga ko bëggee wala déet. loolu moo tax daara ji am lu mel noonu daara yëpp am nañ ko waaye defe naa daara yi ci berndeel beral kenn koo xam ne wala ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey defe naa fii ci Porokhane rek la am muy saytu wàllu njàng meeg njàngale mi. niñ koy defee nag mooy euh, buy xale bi dugg si rek la ñuy commencé di ko xool par kenn ñi dugg ren ci misaal kenn ku ne danañ beroog yow xool la laaj la ba xam euh, sa xel fu mu toll ak it bu fekkee jàng nga dara li nga jàngoon ndax yaa ngi ko doon xam wala su fekkee jàngagoo dara noo doon dundee ci sa biir famille loolu nag ci aw ci kaw ay laaj ak i tontu rek lañ koy defee ñoom ngir xam seen euh, xuwatu daakira seen xel daal fu mu toll. Eh, yooyu danañ leen ci laaj ay laaj yu bëree bëri eh, bu fekkee ne jàngoo woon tamit noonu lañ lay laaj ay laaj lu jëm ci sa wàllu uh, fameek maanaam noo doon dundeek ñoom ndax xam nga ndax li ngay dund yaa ngi koy xam wala déet loolu mën nga ci xam xelu xale bi nu mu toll. bu dee jàngoon nga tamit même bu dee français wala anglais loo jàngoon danañ seet ba xam ndax yaa ngi doon xam dara loola su boobaa dañuy amal njëriñ lool bu ñu lay jox ci jàngalekat yi. ndax jàngalekat yëpp yemun am na ñoo xam ne mën nañ jàngal ku naqare xel waaye am na ñoo xam ne ku neex xel rek lañ mën a jàngal su ko defee loolu lépp dañ ci bàyyi xel eh, ci ci ci ci niveau yi ñuy séddalee bu loolu jàllee tamit eh, bu ñu leen xasee séddale ci biir classe yi danañ leen toppaat di leen def beneen évaluation boo xam ne dañuy xool nu ñu nekk ca classe yi ndax ñi ngi jàng wala jànguñu ndax ñi ngi leen di jàngal wala jàngaluñu leen ndax li ñuy jàng ñi ngi koy xam wala xamuñu ko maanaam ñi ngi koy mokkal ndax mi ngi rafet wala rafetut su yooyu yëpp amee fët bi ci kan la ndax ci xale bi la su dee ci xale bi la lu ko waral su dee ci jàngalekat bi la lu ko waral loolu bay question yi lu ñu leen di laaj ni leen koy laajee nag mooy kenn ku ne la nga jàng rek dañ la cey tànnal ay laaj ci biir alxuraan ji laaj la boo ko defee xam ndax mi ngi mokk mokkut mi ngi rafet ndax rafetut ndax ko mboroom daara ji Cheikh Mouhamadou Moustapha Euh, ali ridwanullahi baaxil xadim dafa wax dafa waxoon ne nañ fi jàngale njàngal ma rafet tey jëfandikoo riwaayatu wars euh, loolu moo tax euh, ñuy natt ba xam ndax it loolu ndax waxuma la quantité bi bëgg nañ ko ndax faaw nga njëkkante jamono waaye qualité bi tamit defe naa mu ci ëpp solo loolu moo tax ñu di ko def loolu nag dañ koy topp xale bi ba keroog muy mokkal noonu rek at mu nekk ñu jéem lañ ca man jéem leen a seet ñoom ñëpp kenn ku ci ne ba xam sam njàng fu mu toll ak ndax nu mu demee ndax mi ngi baax wala déet ndax loolu ci la ñuy mën a xamee ndax xale bi eh, yàlla dogal na ci moom mu war a mokkal wala déet. ndax su fekkee gis nañ ne xëy na niñ ko toppee ci biir njàngam gis nañ daal kii xëy na xel mi eh, mokkal alxuraan dafa mel ni yomb ko ñu teel koo jéem a dugal ci centre de formation bi ba waxtu bi fi war a def jeex ñu ndax mu mën a defi leneen comme màggu jigéen dafa xaw a gaaw. bu seet boobu jàppee nga jàllee nga xam ne moom durant li muy jàng lañ ko koy defal at mu nekk su demee ba ki koy jàngal wóolu ne mokkal na tamit e, su boobaa duñ doyloo loola dañ leen dañ koy waat seetaat ko seetaat boo xam ni mooy gën a sévère ci biir alxuraan ji yëpp laaj ko ci ay yu baree bari yu yu jafe ak yu yomb jaxase ko ci biir. su boobaa danañ xam ndax mbokk gi wér na wala déet danañ xool tamit ndax njàng mi rafet na wala déet ndax njàng mi wér na ndax tajwid bi baax na ak yooyu yëpp danañ ko ci xamaale. danañ ci xamaale tamit yaru xale beeg ñàkk yaramak ak yu mel noonu ci seet bi ñu koy seet ci biir euh, Euh, biir njàngam dañ ko ci xam même buy door dugg sax buñ la laajee ay laaj ba noppi danañ ci xam xale bii ndax kuñ yaroon la fam nekkoon wala yaruñu ko woon su boobaa loolu lépp dana tax ñu xam niñ koy dimbali ko su jàngalekat bi déclaré ne mokkal na nag su boobaa duñ doy lool waaye dañ ko seetaat seet boo xam ne bu xaw a sévère lay doon. ba daal wóolu ne niñ koy seete mooy nañ doon seete fële rek xëy na laaj yi day gën a bari waaye day gën a ëpp ci biir alxuraan yëpp ba xam ne mokkal na mokkal gu rafet e, njàng mi tamit wér na ñu door ko jébbal nag e, ñu nga xam ne ñooy laaj na bi nga xam ñooy yor wàllu googu ñu yóbbu leen Tuubaa digluwaat leen foofa diglu boo xam ña leen di diglu bokkat ñu leen doon jàngal fii ci gàttal bari nay détail waaye nag loolu daal mooy li ci gën a e, ëpp solo lii soxna si waxoon léegi tamit euh, ba tey loolu beneen évaluation la muy xale bi nga xam mokkal na ba noppi war a ñu xool war ko jox muy bind te du ko xool muy beqi muy di ko bind di ko xool par sumun wala par rubon ñu am jàngalekat boo xam moom lañ ko féetale mu leen di toppal liñ bind te duñ ko xool xam nga loolu yombut waaw nga bindul tolloog rubon wala tolloog suñ ab page wala lu ko te doo ko xool bu noppee mu toppal la ko la ca wér ak la ca wérut suñ demee ba nga xam ne nag gis nañ ne xale bi mbind mi rafet euh, rafet na su boobaa ñu door koo nag jox mu war a bind kaamil bind kaamil bi tamit dañuy fas yéene du ko xool incha allahu taala e, loolu daal ci gàttal e, mooy évaluation bi ñu ngi jéggalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ci ndigalu e, njiitul daara ji mu am ay leeral yoo xam ne xam naa ci ñenn ñi nga xam ne mooy li nga xam ne moom moo aju ci Eh, dundu xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci daara ji loolu nag sëñ bi moo ko deflu woon ci ay jamonoom ba mu koy defit daawoo woon ay boromi xam-xam boromi xam-xam yoo xam ni eh, dañuy dañu ñoom dañuy saytu mooy mbiru lekku xale nan lay demee gan lekk mooy gi ñu jort ne moo gën ci moom ak it maanaam ca ca ca nan lay war a toll ba baax ci moom loolu ci norme UNICEF lañ ko lañ ko la ko sëñ bi deflu woon ñooña def ko tënk ko maanaam ca loolu lañu tënku ba euh, weer wu ne ñu xayma xam ni nangam ji danañ ko joxe foofa ngir ni mu jëm ci dundu xale yi dund nag ñun fii ñu nekk nii kenn ku nekk xam na li ngay dundee mooy ñun lu ñuy dundee rek di Sénégal yi dundee li nga xam ne moo Sénégal yi dundee nag moom la ci ëpp mooy ceeb ak dugub waaw la ca topp door caa topp euh, weer bu nekk nag ci tënk euh, ndax weer yi yemuñu euh, jël naa ci benn boo xam ne bii rek mooy dama ko caa jukki rek mooy weeru mai vingt deux mille vingt et jox nañ daara ji douze million deux cent quatre vingt mille six cent quatre cinq francs waaw loolu nag benn weer la waaw su ko defee su defee noonu danga ma perturbé euh, douze millions nangam yooyu nag sérieux nañ ko ndax loolu ceeb a ngi ci diw ngi ci bër ngi ci suukar a ngi ci mburoo ngi ci ñebbe ngi ci tamaate ngi ci géej ak yéet ak waaw gaa yooyu yëpp ñu ngi ci mhm. noonu lañ koy def ba mu wàcc nag ñoom ñu wax ne kon weer wi dinañ joxe nangam ji moo moom mooy doon dundu xale yi ci weer wii loolu exemple benn weer la su su su su loolu su loolu jeexee maanaam su ba weer yi yëpp jeex su ko defee ñun nag ñu tënk wax ni euh, ren ji daara ji maanaam dépensé na nangam euh, da nangam jooju ma dépensé dañ koy sérieux nag wax ni li jëm ci lekk nangam la li jëm ci carburant nangam la li jëm ci divers mooy euh, am ndugum yu sew rek nangam la euh, muy nangam loolu mooy li nga xam ne xaalis lay doon moom faw lu ñuy lu ñuy génn di jënd la masalan ma jox leen bu bi xam ne moom lañ def euh, li nga xam ne moom lañ jox daara ji toll na ci 138 millions 845 mille 288 loolu mooy li nga xam ne moom mooy mooy dund daara ji ci ci ci at mi waaw booleek eh, dañ ci ci boolewaale nag mooy su su suukarus ñi nga xam ne daara ji moom moo leen koy jox ndax am na daara ñoo xam ne daara ji moo leen di jox suukar ak ñoo xam ne ñii nguur gi moo leen di jox suukar ñi nga xam ne daara ji moo leen di jox suukar nag suukar si mu leen di jox mu ngi toll ci 34 millions 800 mille salaire kat dama yaakaar ne tubaab la <laughs> waaw léegi bu ko defee ah, ah, ah, loolu mooy li nga xam ne xaalis la espèce li ci des mooy te daara ji di di ko defal xale bi Mbacké payoor bi waaw payoor yi million millions cent mille ci ñi nga xam ne daara ji moo leen moo leen di fay rek ñeneen ñi bokkuñ ci kon hmm. waaw loolu mooy espèce li tubaab di wax en nature mooy li nga xam ne loolu moom njëfandikukaay loo xam ne masalan bu dee dugub dugub la mi ngi fi bu dee bu dee dee ceeb ceeb la mi ngi fi bu dee diw ainsi de suite yooyu moom ñu ngi xool ne ceeb bi mu ngi mu ngi tolloog 40 ci ci at mi 40 tonnes 725 kilos waaw li nga xam ne ñu ko nattee ci fii cent francs kilo bi bu dee masalan lool la maanaam dañ ko xool ci ci fii fi mu gën a gàttee rek dana doon 8 millions 145 mille dugub ji dana doon 1 million 886 mille 850 saabu yi saabu euh, moo xam fóot la moo xam sangu la moo xam leneen la euh, saabu yi dinañ ci def 2 millions 500 535 euh, mille eau de euh, eau de sawel eau sawel nag bu bu bu liquide bi boobu ñu ngi koy def huit cent vingt sept mille madaar mii ñuy raxasee ka defee yëf euh, moom euh, dinañ ci def un million cent trente huit mille cinq cent omo bii dinañ ci def trois cent quatorze mille cinq cent loolu boobu ko xool total mooy quatorze millions huit cent quarante six mille huit cent cinquante boo ko boolee ak lee nga xam ne mooy espèce bi moom moo lay jox 138 millions 845 mille 288 noonu daal la la tëddee noonu la ko sëñ bi tëralee boog ñu di ko ko doxalee noonu waaw estimation courant bi nag mooy bu ñuy jot ñun facture yi dañuy jotale facture bi nga xam yi nga xam ne yu fondation bi yëpp la mooy Kër Soxna Jaara ga ak fii waaw li ñuy jot fii nag par rapport ak li ne ci kër Soxna Jaara ga moom day tuuti lool dañuy dañuy bàyyi rek bu ko defee ñooñu ñoom bu ñuy xayma dañuy xayma ndax ñun daan nañ ko def sax waaye du tey ñoom danañ def loola. waaw bañ ko def ñaari ñaari jëf nag moo tax ñu ñu ñu bàyyi muy jàlli fenn waaye courant bi moom moom moom moom bokk ci am na nag courant boo xam ne bii. Eh, xëy na bu sëñ bi ñëwee moom dana dana ko leeral mooy da ci am yo yoo xam ni eh, naka lañ koy waxale te yaxaanal woyofal mu ngoog maanaam woyofal boobu moom eh, yi ñu jot yi nga xam ne moom lañ mujj am mu ca dortoir yee waa Sénélec dañoo wax ni ñoom lool lañ ca installé si bien que waxtu wu ne sëñ bii moom mooy sol crédit ca ca loola bu ko defee rek muy muy dox waaw bien que nag ñu ngi wut pour loolu bañ a kii ndax léeg-léeg mën na am rupture am ndax euh, xaalis moom defe naa yor ko noonu noonu di ko xaar yombul waaw moom jàmbaar la ci lool ci loolu ndax moom mooy moo tax ba gestion bu ne maanaam mu bu tàmbalee rek bu ko defee moom mu tàmbali di xayma weer wu ne ñaata la weer ndax weer wee na ba ba ba at miy jeex sama borom mu ngi ñuy sutural di ko doy sutural moom ba ba ñu ngi koy fay waaw waaye loolu ñëwuñu rek la waaw ah, bokkul ak yii nga xam ne moom yu compteur la xam dañ la koy lebal buñ noppee nga fay déedéet boobu. Hmm. léegi dortoir bu nekk mën nañu xam ñaata lay consommé ci ah, euh, bu bees bii. nga xam ne woyofa la ca nekk. trois cinquante 000 lay consommé par mois. waaw maanaam ñetti bâtiment yi. ñetti bâtiment yi nekk fële yu bees yi 350 ensemble waaw ñoom ñett ñoom ñetti bâtiment yi 350 mille la léegi xam naa ma àggale ci ci ci menu bi mooy mm, nan la sëriñ bi bëggoon ñu di ko tëralee ah, dafa dafa waxoon ne euh, su altine nañuy jox xale yi euh, ñu ñu ñu ñu domoda domoda bu ànd ak yàpp bu bu ngoonee ñu ñu ñu jox leen baase moom sax nag daa waxoon ni ñu ñu ñu ñu ñu ñu maasale ko lépp ci ci cere. ginnaaw bi daal la ak sob-sob lu dugg ci ñun ba ñu xam ni xëy na léeg-léeg di ko di ko di ko di ko soppi it du suñu sob-sob lu laa wax ndax loolu waxuma ko woon. waaye nag ñu ba di ko soppi ngir bu ñëpp mënul jël cere itam boo jëlee cere tey bu ëllëgee nga gis nga dajeeg leneen. moo tax altine ñu defee ko noonu bu bu talaata. ñu ñu defal la ceebu yàpp ci añ su su su weer jotee benn ñu defal la mbaxalu saalum bu beneen bii ñëw bu ñëwaatee ñu defal la ko ñamu tubaab moo xam nag macaroni la wala leneen wala leneen yooyu daal vermicelle la gaa yooyu nga xam moom la moom ay bokkam eh, su su àllarba mu mu mu ñu def eh, eh, yaasa yaasa jën su ngoonee ñu def mbaxalu yàpp waaw su su su su alxemesee comme bis tey euh, ñu def ceebu yàpp su su guddee euh, ñu def cere ak mbuum waaw euh, su ajjuma ñu togg ceebu jën ci bëccëg léegi benn mu weex tey bu ëllëgee mu xonq daal noonu daal la su su su ngoonee ñu joxe ceebu ñebbe waaw su samdee ñu ñu ñu togg maafe yàpp waaw su su su ko defee su su si ngoon saa ñu togg cere ak taalaale taalaale rek taalaale rek léegi su dimanche ñu jox leen ceebu jën waaw su su su guddee ñu jox leen ndambe ndambe bu ànd ak yàpp waaw noonu daal la semaine bi noonu nag la la waaw su lu ngeen gis ci reer yi lu wuuteeg cere rek nag loolu xam ngeen xam leen ne suñu cogte la ñun mhm. euh, te xanaa sama nag. ma am chiffre yu ko ni dañoo euh, euh, ni doon li doon mooy. bu ñu defee bu ngeen defee année bi yëpp maanaam année bi yëpp ngeen xool mois bu nekk ndaxte mois bi mën na ëpp mois bële euh, te loolu bu ñu bëgguñu tënk ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey dindi ci daara ji bu ñu tënk ci chiffre bu nga xam ne mooy maanaam chiffre bu dañu toll ci weer bu bu baax xam naa bu ñu defoon moyenne année bi ci ci ci li nga xam mooy dépense mensuelle euh, ci ci dund bi yëpp euh, ñu ñu ñu diviser ko par kon danaan xam dana mën a xayma weer bu jot lan mooy dem ci dund gi lan mooy dem ci courant bi bu ko defee loolu tam estimation yooyu day tax ñu gën a di defaraat ci ci ci dund waaw bi waaw léegi léegi loolu xam naa détail la moo taxoon ma joxe ma joxe maanaam global bi global bi mooy ma ne at mi lekk gi nangam la ah. kon loolu weer yëpp a ngi ci kon mars ak nangam ak ñoom ñëpp ñu ngi si waaw loolu la moo taxoon nag ma jukki bii wax ne bii de moom dama koo jukki rek ci weer yi mënoon naa tombe ci beneen weer bu dul bii waaw waaye ak lu mën a xew weer woowa ak weer wii ak yi nga xam ne ñoo ko formé yëpp ñoom suñ leen suñ leen xaymaa ñoom li nga xam ne moom moom lañ ciy dépensé moom laa wax fii waaw mhm. mais waaw global bi dama waxoon ne xam nga suukar si ci la suukar ski suukar ski yi mi ngi ci waaye dama wax ne global bi 138 millions la 845 euh, mille 288 loolu mooy global bi suukar seeg waaw ah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu kilifa gi kilifa jataay bi sëriñ Isxaq di nuyu kilifa yi fi teew di sof suñ kàddu rekk ci wàll gi nga xam ne mooy wàll gi nga xam ne moom ci lañu ñu féetale muy wàllu yar bi di yaatu itam ndax barab bi ni ko soxna Maawo junje léegi jàngale alxuraan la ak diine ak yar waaye mel na ne bi ci gën a yitteel seeni boroom mooy ku fi jóge boo yóbboo alxuraan ak diine it nga yóbbaale ab yar mel na ne jataay bi Cheikh Mouhamadul taxa mujj a def fii ci mbaar mi ak nun nee na dëgg la naam alxuraan ji baax na xam-xam bi baax na waaye yar bee yitteem yar boobu it bi sëñ Aboo Jaxate dikkee lim fi fekkoon da ko da koo yokk xam nañ ne barab bu mel nii ñépp bokk ko ku ne di fi ñëw kenn ku ne am nga foo bàyyi ko ngir dikk fi lu toll ci juróomi téeméeri xale ak juróom fukk ku ne ak saw melo ku nekk niñ la toqee nga war fee ñëw am ñoo fi fekk si ñu am ab yar bu ñu war a def ci yow loolu lu jafe la loolu moo tax sëñe boo surveillance bi nga xam ne moom la teg ci samay loxo mu yaatal ko ma séq ko ak ñeneen bañ ne ko ba ci jàngalekat yu jigéen ñi bi mu gisee ne aw jigéen ñoo fi nekk euh, te man góor laa lu ma wër-wër ci biir barab yi jigéen ñi nekkit am naa fu ma war a yem mu gis ne kon faw mu boole maag jigéen jigéen joo xam ne fu jigéen ña nekk dana fa mën a dem lum fa jëlee jox ma ko looloo tax mu détaché ci jàngalekat yi ku ñuy wax soxna May Njaay nga xam ne sëñ Abo natt na ko ba xam ne am na personnalité manayar gone mu jële ko ca njàngale ma boole ko ak man yëmut ci loolu ci biir internat bi ci boppam ndax soxna May Njaay fi ñu logé jàngalekat yu jigéen ñi ci biir daare ji foofa la dëkk waaye ci biir internat bi xale yi nekk itam bu xale yi wàccee am na ñuy war a saytu xale yi ci biir loola mu tànn koo xam ne ku tànnu la ci daara ji mu di ko wax soxna maam jaara Touba Diouf jëwriñ lañ koy wooyee fi la nekk di jàngale moo mooy sax ki njëkk a bind kaamil ci daaray maam jaara euh, kooku moo ne ci biir internat bi lu mu gis ci gone gi daf koy siñaale soxna May Njaay buroom soxna May day ñëw ci man wax ma ko yàlla def na ñun ñëpp ñu am ay registre man am naa registre bu mag soxna maam Awa Dem mi toog am na ko buroom sëñ boobu mi nga xam ne moo yilif ñëpp am na ko xale bi suñ ko indee ci man du mën a bëreet rek yóbbu ko ci soxna maam Awa wala ma yóbbu ko ci sëñ Abo bu ma ko soxna may indilee wala ma gisal ko sama bopp damay commencé di naxtaan di di naxante ak moom di ko làmb wet gu nekk léeg nga daje cee gone muy koo xam ne nii ku neex a jubbanti la soo ko neexalee sax jël sa ñaari doomi tàngal jox ko walla dara soo léegee la nga ko déggoon walla la nga ko gisoon dootoo ko ca gis léeg nga daje ca gone goo xam ne nag moom wax dëgg yàlla orienté ko jubbanti ko lu jafe la su boobaa damay dal di ñëw nag ci sëñ informé soxna maam Awa soxna sëñ samp na lu ñuy wax conseil de discipline boo xam ne bu fekkee gone gi jaaxal nanu danañ ci toog membre laa ci soxna maam Awa membre la ci sëñ moo ko jiite benn jàngalekat dana ci bokk ndax yar bi li ko tàmbalee ci buntu daara ja ba ci biti ñëpp ci yar bi lañu bokk. gardien bi bu gisee lu ko jaaxal daf ma koy wax ñiy jàngale ci seen classe ci seen bopp buñ gisee lu leen jaaxal ci xale yi yor dañ ma koy egge wax ma ko suñ ca jéemee ba tële soxna Maaw mii sax léeg-léeg mu woo ne ma xale sàngam nañ ko seet sàkk ci moom paxe ba xam loolu di lu yaatu loo xam ne ci liggéeyu surveillance bi la bokk ndax gone yi classe bi lañu am cours bi. biir internat bi classe bi jàngalekat ba lañ fay dajeel ku ne xam na ne xale bi jàng war ma ji muy jox ki koy jàngal mën na koo bañ a jox keneen ndax ki koy jàngal lay gën di ragal lu ci gën a bari bu génnee ci kuur bi su boobaa nag léegi mën la ko séqal su duggee ci biir internat bi ndey daara ya fa nekk nga xam ne mën nañ leen a jàppee ñi euh, ñuy yor ay gone ci biir ay classe muy ay monitrice ñoom nday daara yooyu ñoom la fay dajeel waaye ndari nday daara yi daanaka gone yi maam lañ leen di jàppe ndax mage gu ëpp gu ci ñoom looloo tax sëñ boo bàyyi ci biir internat bi koo xam ne bu gisee ci gone yi dara dafay dal di ñëw signaler ko wax ne gis na ko alhamdulilahi rabbil alamin suñ borom ma ngi ñu ciy dimbali bu baax a baax a baax ndax juróomi téeméeri gone ak juróom fukk suñ nekkee ci barab te bokkuñu fuñ bàyyikoo bu la ca yàlla joxe fukk yu jub sax war nga koo sant yàlla ndax suñ borom may jubal man nga cee sonn man ngaa xupp man ngaa def lu nekk waaye nag ndimbalul yàlla bu ci àndut ngir nga jubal ko dana jafe nun nag sant nanu ci côté boobu ci ne wax dëgg yàlla ñu ngi ciy génn bu baax a baax a baax néewuñu ñoom ñëpp yaru nañu waxuñu ko néewuñu ñoom ñëpp jub nañu ci niñ ko bëggee loolu amewuñ ko noonu waaye lin am xeebunu ko te danaa ci joxe tuuti misaal mooy euh, sëriñ Isaaqa defe naa daaw jéeg bi ñu bi ma àndeek moom dem Côte am na maam jaara mu ñu fa fekk mu ñuy wax soxna maam jaara Faal fii la jànge ba ñibbi Côte waaye bi sëriñ bi defee ak ñoom jataay ba jóg di dem dafa am góor gu téye ci sama loxo ne ma soxna maam jaara Faal mii dey fañ ko defaree bëggoon na maa am doom ju fa dem ndax jëllale naa ay moroomam waaye moroomi way juram yu xuloo sax bu egsee ci ñoom ñu juboo muy maam jaara faal moom te maam jaara faal fii la jànge alxuraan maam jaara góor a faal ñibbiwaat Côte d'Ivoire sotti fa loola beneen bi kii li tax ma téye ko daaw képp la fi dikk muy maam jaara ngom Canada la baayam dëkk yu Ngom baayam dafa ma woo barki démb wax na ba jooy ne sama doom ji diggante bi mu def daaray maam jaara indi na ci sama biir kër jikko joo xam ne fekk ko fi woon rakkam yi fi nekk xiir na leen ci jaamu yàlla ci waxtu te loolu mënuma ko woon a am waaye dikku xale bee tax ma man koo am nee na ma àgg nañ ci ñun sax lim ñuy fekk fekk ñuy teg suñ mbir ci yoon gën na noo nosu ngir melow gone gi looloo tax ma retenir xale bi wax ne na toog bu mu dem kon ci wàllu yar bi temps bu gàtt bi tax na mënumaa xuus ak yéen ci lépp waaye dara rëccuñu sëñ boo bu fekkente ne bii conseil discipline bi daje nañu ñu indil ko gone sëñ boo lamb ko wet gu nekk ndax gone gi mën ngaa jàpp ne dafa réew fekk xel mi am na lu ci ne loolu itam saytu la laaj loolu sëñ boo ngi ci jël ay matuwaay su demee ba gis ne gone gii nag pexe amatu ci loola su boobaa nag daf koy jébbale ci teggin ay bokkam xam ne barab bi ñëpp a ko bokk génnewuñ ko waaye dañoo bëgg mu yaatal keneen koo xam ne xëy na bu egsee danañ mën a def ci moom lu jariñ ëllëg looloo tax ñuy libéré gone gi donc kon yar bi lu yaatu la waaye ci biir yar bi itam ni ma ko sëñ boo waxee woon ci la liggéeykat yi tat bi liggéeykat yi sëñ Moussa Ñaan mii intendant bi te doon wax ak yéen léegi loolu bi ma egsee damaa fekk mu nekk ab liggéeyam waaye moom mooy ko muy koo xam ne moom charge yi ci moom dafa bari lool ba tax na ma féete ko ci liggéeykat yi muy balekat yi euh, femme de chambre yi nga xam ne moom moo leen di jël directement ndax soxna Roqee sekk mi ne ci dëkk bi moom sëñ Bassirou Poroxaan moom lañ defal euh, expression de besoin maanaam buñ soxlaa ab liggéeykat Serigne Moustapha defe naa ne dafa waxoon ne euh, kenn du jëggaani dara ci àll ba su ko amee na leen ko jox su ko amul ngeen der ko wuti ci biti léegi soxna Roqay bu ñu indilee liggéeykat liggéeykat boobu man maay saytul sëñ Moussa ñaan ci liggéeykat yi li ciy xew su boobaa su ma ko waxee nag moom mooy xool yan matuwaay la ciy jël loolu moo tax amuñu problème ci ñiy bale daara ji subaa ngoon ndax suba ngoon la ñuy bale daara ji loolu it liggéeyu soxna May Njaay mi ma leen doon wax dolliku na ci ndax bu nettoyé ba noppi fu ñu jaaroon soxna May Njaay dana fa jaaraat néeg bu mu gis mu taq dana ñëw signalé ma ko danaa woo équipe ba nga xam ne ñoo doon nettoyé foofu lu ma ca jaaxal danaa informer directement sëñ Moussa Niane kon ci gàttal daal ngeen xam ne noonu la tëddee waaye sant nañu sunu borom ndax li fi jógee gun ak li fi des sant nañ ci yàlla ñi ëpp ci ñoom kenn jàmbatu leen. Ah, am lépp mu baaxandoo lépp nag defe naa ne sunu borom mi man lépp sax defewu ko noonu. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum mbooloo mi. ñoo ngi nuyu sëñ Isaaxa di ko ziyaar euh, di jot li suñ nuyoo tamit mbooloo mi mu àndal ak képp ku teew ci jataay bi tey ñun nag ñoo yore centre de formation bi nga xamante ne nii maam jaara yi suñu jàngee alxuraan ba mokkal wala ñi nga xamante ni aussi dañ leen a tànn indi leen fa ñun ñoo leen di dalal fee ci centre de formation bi fii ñu toll nag ñu ngi ci juróomi métier lañ am foofu xale yi suñu ñëwee ku ci nekk dañ lay bàyyi ak sa choix bopp parce que bëgguñu la imposer benn métier ñii ñooy wax ne ñun kat ñaw lañ bëgg ñu waxtaan ak ñoom ci loolu expliquer leen métier mi ba mu leer ñi ne ñun kat togg lañ bëgg mais togg gi aussi duñu yem ci togg rek dinañ leen jàngal togg dinañ leen jàngal ni ñuy servir ak yeneen métier yi muy ak yeneen matières yi muy àndal su loolu weesoo tamit am nañ fa métier transformation mooy nan la ñuy def ba supp suppali soppali gàncax yi nga xamante ni ñu ngi koy bay loolu tam benn métier la foofu daaw tam am nañ fa métier mu naan élevage di jàng yafal ak yar ak jur am nañ fa tam horticulture boo xamante ni mbayum dër la mu démarré kon juróomi métier yooyu moom lañ amagum ci centre de formation bi man nag maa ngi ànd ak fukki formateur ak benn yoo xamante ni état moo leen fa affecté ñu ànd fii ak euh, ay jàngalekat yu ñu fi fekk yoo xam ne daara ji moo leen jël muy ñoom soxna aji maire Faat Kan soxna naarloo ak sëñ Fallou mi nga xam ne moo leen doon jàngal arab te arab bi dafay continuer toujours ci centre de formation ba métier yi nag am na ay matières yoo xamante ni ñoo ñu ciy jàppale lu mel ni français bi dinañ ko fa jàngal dinañ leen ko jàngal tuuti arabe bi comme ni ma ko waxee dafay continuer am nañ salle informatique mais amuñu woon formateur mais tey jii ti ni may wax ak yéen avant may ñëw ci jataay bi amoon nañ benn partenariat bu amoon ak 3FPT 3FPT ñoo bokk ministère may nañ ñu benn formation bu trois mois boo xamante ni dinañ ci mën a toog tàggat soxna yi soxna jaare yi tax mu jóg donc formateur bi ñëw na tey def nañ état des lieux xool na salle bi euh, vérifier na machine yi donc su gàmm gi jàllee rek incha allah samedi ba ci jiitu dañuy démarrer formation informatique bi ak ñoom xëy na nag diplôme yi ñuy former pour l'instant ñun ay attestation d'école lañ leen di jox am nañ ay diplôme état am nañ certificat d'aptitude professionnelle am nañ certificat de spécialisation professionnelle mais yooyu fi mu ne jàngalekat yi dafa matagul ndax ku ne xam na ne octobre 2010 novembre 2018 lañ fi ñëw mais état mu ngi ñuy jox nag personnel mais doyagul donc li ñu war a def ci xale bi ba mën koo jox diplôme d'état dafa xaw a des moo tax ñi njëkk génn promotion yi njëkk a génn diplôme école lañ leen jox mais nag attestation lañ leen jox mais nag ñu ngi continuer di ci liggéey ak ministère bi defoon nañ demande boo xamante ne nii fondation bi appuyé woon na ko am nañ yaakaar ne dinañ jotaat beneen personnel bu bees boo xam ne compétence yi ñu dese ñoom dinañ ko mën a indi pour que métier bi mën a mat xale bi mën fee génn ak diplôme diplôme état. fi ñu bëgg a jeexale aussi mooy budget de fonctionnement ndax ku wax centre de formation aussi soxla na fonctionnement ba ñuy démarrer suñu première année ak suñu deuxième année yëpp ministère bi 1 million 600 la ñu joxoon budget 600 yi fayu gardien la 1 million la ñu joxoon fonctionnement ñu ñëw ba daaw suñu troisième année yokk na ko ba million 2 millions 650 mille 600 mille yi frais de gardiennage la 2 millions 50 yi moom mooy pour fonctionnement léegi nag fonctionnement boobu aussi état du la ko jox liquidité dañ koy engagé ci fournisseur état day jëlaat 18 pour cent TVA fournisseur bi am paaram donc li des nag moom la ñu indil matériel ñu séddale ko ci cinq filières yi donc muy nag sunu jafe-jafe mais li ko xaw a oyofal nag mooy bi ñu yàlla jàppalee ñu sos centre bi ci biir daara ji waa daara ji dugal ci seen loxo. ndax kat formation maam jaara yi daaw rek ñu ngi amoon téeméeri maam jaar ak juróom fukk ñoo bindu woon ci centre bi mais lépp lu ñuy soxla pour seen formation ñoom ñi ñoo ñu koy jox ndax suñu basé woon ci budget boobu tey duñ ko mën parce que état fa mu toll ak ñu nit mooy libéraliser ñu tuuti ñu mën di wuti ay partenaire di indi mais ku ne xam na ne zone bi partenaire demeewu fa partenaire côté état wala technique financier demeewu fa noonu donc pour ñu am ku ñu jàppale ci côté boobu dafa xaw a metti donc daara ji mu ngi ñuy jàppale ci femme de ménage ñoom soxna aji ñoom ñoo yore seen ay salaire produit d'entretien bi ak matériel d'entretien ba ñuy jëfandikoo foofu chaque mois ñoom ñoo ñu koy jox ak yeneen ak yeneen yu ñu jàppale donc centre de formation bu foofu la toll euh, di sant rek di gërëm administration pour ban a guddal administration daara ji ci jàppale euh, mbokk yi noo ngi